Président eh, voilà ma ne ñu ngi nuyu imam ak euh, kilifa yi fi toog naanoom be saf alimama di kul fana kana ko yeftaate burom di len sant di len ziar naanoom be staff na ziar yu muy di kontaan trop ci lii ngeen def. naa ne na kontaan kontaan di mobilisation ngeen a toog ko ñoo taate. di féliciter le coordonnateur de Diakounda. naa na safa coordinateur o añuna oolu e ci Diakounda. góor ak jigéen mag ak ndaw. ano sani amitata seeka kontaan nañu trop. naa na kontaan kontaan fan-fan. ñoo ngi jóge Ziguinchor. naa noo ko Ziguinchor na purewu ñaa. ñu ngi jëm Diourbel. naa noo jaw Diourbel. mais ñu gis ngeen nekk fii. naa ne na juku manu juumaaño taate li ngeen def rafet lool naa ne na tooku taate man jakke moome jak di leen gërëm di leen sant naa noon be saafo laa na remercier laa na moo tax ñu ñëw wàcc mag ñi nane mo kane nan kurego ma wolowu ma jooma saftatali mamaw ziyar len nane na kawka na jooma safuna ziyare wu sakka ñaan a ruwo encore na lan a duwoy sukay gërëm ñu jigéen ñi ak nane na sa saaf ku sekak na di ku niino ku buram wax leen ni lii ñu taxaw fii nane na rago wala kam man ku jum taate dañu ñëw pour nemmeeku pour euh, dox mbokk naane euh, euh, projet yola yo kammi kay euh, ma jumtate mbokka wula tu kokonoro wax leen réew mi rek moo naane na regu me ci la Sénégal a ñoroo ak askan ak askan wi di bu xam naa ni problème mu mbay mi naane na mamañ me problème te wàññey ak problème mu sàmm bi di problème ci fu ma taf problème la fii ci département de Bignona. non non maman mais yow comme problème yow loolaa wala baabe surtout suñ ko delloosee. Eh. suñ ko fajee. Eh, nam ɗum manjama mbiɗa ka araɗaɗa dina réglé probléme yu bari nane wokkane a réglé ja pa réglé pa ci probléme samanke sa juupe ku dimbali casamance nane ano sona para paramɓe ɗum dundal sénégal nane eh, casamance pe gonde dundal sénégal si yeno ɗan bay ceeb lekk ko nee na utewulaa e nu wona e léegi ñu bari ci yéen dañuy jënd ceeb léegi jukutiñe silupe tunnaane wula toynoome maana muy wane ni mbay mi daanu na yàqu na wa wow kaane e wane cecet e ay socialiste lañu e, naane na rago me kila ana parti socialiste mbay la ñu gëm e e wañey nan kooku lakotoome wañe baraka baraka Eh, eh, kara sakku bo e eh, wañe ku moo tax suñu programme ndi ko wakkaane di programme yoola mooy dañu bëgg a dekkal mbay mi wakkaane di programme la e wañe yoydo dimbali nit ñi ci aménagement de kurambe bu kanama ku kamman ku ngone kurada si toles nit ñi ci matériel agricole di kurambe bu kanada si matériel subañumas dimbali nit ñi ci semence di kurambe bu kanada e lukitey dimbali nit ñi ci engrais di kurambe bu kanada di engrais te suñu paree daañu xoolaat njëgu gerte geeg ceeb bi ñuy jënd baga ko bañjapal di prier bagala ko bane noone di ay maanaay parce que ci ñu yar loolu ñu xam naanoo ci la wokk yar moo ko moo ko kuro men no am bakal laa ne nu waafun rek kaane wokkama bu bañ am la am dispensaire ni mën faju Lakini mapi kama chisuka sibaci lampa sibaci hôpital mapi kana ku ngoonam faju parce que Sénégal mënul am soixante quatre ans indépendance dëkk amuñu dispensaire amuñu fuñu fajo amuñu naanu ngoonam tu laka cukiyanu manje depuis simir kanku fegi di si baki ci cukar beja si bajot si hôpital si bajot ñun loolu la ñu gëm naana ci parti sociale yi wara duñu duñu def ay promes letu latakantaate wanu manje kajoma joojale takan parce que jàngaluñ ñu loolu ci politique parce que ku ku ko karan ku karandiyortoo moo di politique yi mais suñu ñëwee mais juujaamaa joo dinañ liggéey ngeen gis ko parce que ñu ne génnee liggéeyandoo nee na napp naa ne napp woccaale gañe ku jukaa o di wulaw jibe burokaay kii um manjaamit e, buroka boobu man maa ngi doon ñëw fii tangu Enguerrand Badiane tangu Bassirou Cissé tangu le vieux ak landing sane nane na utena jew jew tate di tange angara angara bajan basir sise eh, landing sane kati dembo koli tout ñooñu samay papa la ñu woon ak i mag no di ku tarabu ko la fama titie to man coordination Mamadou Diop laa nekkoon fii rek laa daan ñëw at mu jot nane di coordination yi Mamadou Diop eh, na la koy le ube bona jeewum toujours bi ma seen ni dëkk bi mel dama feebar nani na jalo ma jukum kadi mama yone ma kila fan a juut momi ba tànkale nga pas normal nani moo tax ñun ñu bëgg am fulla am fit ak yàlla war ñu ci jàppale pour que ñu delloo si loolu ñu doon dund ñun biñ fi ñëw nekk xale doon fi ñëw ci kër yi di dem ci dëkk yi di dem ci dëkk dëkkaan yi mokkaane na baj fitee be joobaabe pour be kallangen e suke te donc wakkaane nan no si suge cu pour maa ngoole nan maa ci problème sebu kanak burom jërëjëf loolu daal imam moo doon solo tànk lu bulo jiito jiito aw sànq rek ah góor gi ñu ngi lay sant la gërëm la ñaanal li sa bëgg-bëgg yal na yàlla defal parce que li sa bëgg mooy jàmmi Eh, moo tax maa ngi wax ci turi imam bi toog nii eh, di la ñaanal di la wax ne li nga wax de lépp dëgg la ñun ñëpp gis nañ ko fii sonn nañ amuñu yoon amuñ ay hopital amuñ suñu gerte gi mu nekk ni ba léegi gerte gi jaayuñu ko am bi nga xam ne jaayuñu ko parce que gerte gaa ngi prix buñ ñu buñ ñu koy jëndee vraiment neexul suñu te ñun yaakaaruñ leen dudul affaire mbéy moo tax li nga wax ni dégg nañ ko ñu lay ñaanal yan la yàlla jox réew mi yalla ya defal la jàmm baye ko fini ne ag ci li si jam, yalla defal ñuko jere ñu lay sant di jere Voilà. la dëkk salaat ala nabi muhammad wa muhammad muhammad اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد سلم تسليما الحمد صراط الذين انعمت عليهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله